xaritu internet yi comme nu ma leen ko waxee woon tout rek ñu ngi kër ñoom Mame Ndoye Savon si bésub Serigne Fallou bi di Kazu Rajab bi ki ñuy jàkkaarloo nii nag elle n'est plus à présenter ci plateforme digitale yi ku ne xam na Awa Ama waaye ku ne xam na Awa euh, bu Sidi Diop bu Subatel Music Ama mi nga xam ne euh, kenn doon ko présenté ci milieu showbiz bi Awa ñu ngi lay nuyu euh, bét nañu bu baax fekk si la tey si bésub Serigne Fallou bi kër Mame Ndoye Savon avant tout ñu bàyyi la nga nuyu internet yi ba pare. waaw damay nuyu suñu mbokk internet yi. waaw di nuyu sama famille di nuyu sama yaay. d'accord euh, su ma juumul bi mooy sa première sortie euh, c'est pas le c'est le moment peut-être nga jaale sunu frère balaa Ballago sekk gis nañ ay images nga ànd ci di Diop ak Subatel musique bi yëpp demoon jaale ji ko euh, est-ce que mën nga ñu ñëwal un petit peu lan moo fa xewoon. waaw dama koy jaale Wally sama sama papa la jaale ko nuyu ndax damay wax naqar bi ma ak moom ñoo ko bokk. ndax moom ci boppam xam na sama diggante diggante yaayam at man. ki ne nekkoon sama yaay mbëggoon ma ma koy ñaanal di ko ñaanal xolu muñ di ko ñaanal yan bi ko yàlla teg yàlla na oyof ci boppam ci barke Sëriñ Babacar Si ma koy masaw bu baax a baax. d'accord awa yaa ngi Pikine Mame Ndiaye Savon mooy màggal ba sukk juddug Serigne Fallou gi. Euh, lan nga ñu mën a wax ci Mame Ndiaye Savon ak sa relation ak Mame Ndiaye. waaw maa ngi suñu kër ndax ndax euh, cant bi suñu kër la lii yàgg nañ ko def yaakaar naa ni fanta ngi bi ñu koy soog a def dañoon defal mu ak beurre di segg kafe ba tey yàlla dogal lii kon ñuy sant yàlla rek di wax ni maam lu mu am si sëñ Fallou ko gënal kon bu si sëñ Fallou bu ci defee lii war na. la personne de Mame boo ñu ko doon wax. man nga ñu ko mën parce que maam bi ñu gis si réseaux sociaux yi ak maam bi liggéey ak tey bi ñuy Mame Ndiaye woote da nga naan kii euh, bon boo ko gisee si réseaux yi da nga naan bëgg lu baax wala yooyu noonu. waaw tey sëñ Fallou gi di ko màggal def ci ay xewal yu bëri def bernde yu bëri Eh, yow miy jege maam nan nga ñu mën a mooy maam Ndiaye Savon. xam nga doomu aadama bul def li nga gis ci ci moom rek nga koy jugé maam Ndiaye nekk na nit ku baax nit ku rafet xol barke Serigne Babacar Sy nit ku mën nitam Sénégal boo xamee nekk gaynde rek ñu tegale ku sikk xam nga nga bëgg wala nga bëri noonu mais maam newul foofu barke Khalifa nit ku baax nit ku bëgg nit ku rafet xol nitu kese barke Serigne Babacar. wax naa ko tout à l'heure ci présentation bi bi ngeen ni jaali Waly Balago Seck yéen waa Subatel music mhm. muy yow Matar Diop ak Sidi Diop ñu bëri xaaruñ leen ko woon mhm. euh, su ma jumul sax peut-être mën na doon surprise ci peut-être ci nit ñi nekk ci showbiz bi mhm. yow mi àndoon ak ak ak délégation amoon biir kër Waly bëgg naa nga nettali ñu ko waaw xam mën na nekk surprise ci nit ñi mais ñun mënul nekk surprise ñun te mënul nekk surprise ci Waly parce que dama lay wax la showbiz parce que am na loo xamante ni tey bu ñaawoon loolu du am te su ma neexee ma ne waale këram ku ne ñëw na fa jaale ko mais gëm naa ne suñu ñëw ñun mbokkal na ko ci ñëw yi dàq ci ñëw yi parce que moo ibbi gi mu ñam wax ko moom nag mu kontaan parce que Sidi yëkkat na fa ay xam nga après dégg nañ lu ne comprendre nga dégg nañ lu ne mais ñiy wax dañuy comprendre parce que nekkul ñu fa nekkoon. ay dégg mooy ay dëmm rey la jaale la. waaw parce que ñun bi ñuy ñëw non ay dëmb dee jaale yooyu ay waxu dof la loolu benn dof rek moo génn wax ci kon loolu duñ ci tontu Siri bi mu ñëwee rek dafa jébbal jaalam jël fa kàddu yi rafet jaale wax li nga xamante ne moom la ko Kiné Diouf waxoon te bi ko Kiné Diouf di wax yaakaar naa même pas trois mois Kiné gaañu waale wax yu rafet Alioune Mbaye Nder waaw Alioune Mbaye Nder jël kàddu wax wax yi rafet ni ni moom lépp lu Siri def ci digganteem waale moom doon na ko def ci digganteem ak Youssou Ndour mais ñi xamul rek ñoo xamul mm. mu ni soobis kese la te dama lay dara nga xam ko man maa la ko barke Seydina Mohamed Sidi Diop waay rek la bëgg ci àddunaam te waay Seck dafa bëgg Sidi man fan laa bokk du suba teel da ngeen ñëw soirée waal di ma fekk waal di ma way lu neex su paree balaa wàcc seenam day tubb xaalis ba mu bari jox ma ni ma paasal këram bu ma demoon kenn du ma téye ay nitam nekk samay nit soo bis ci biti ñoo xawl mais ñi ci biir xam nañ suñu digganteeg waale amul dara lu ñaaw dañuy soo bis ci guddi bu ñu yeewoo mel ni du woon ñoom bu bi ma taa jóg sama teel ñëwee da koo wane saal waale bi mu fees del bi mu nuyoo toog daf ne waale man ak yow ñooy wax moom at waale ñu ñoo dugg ci biir néeg ak Aziz. waale ak Matar yu suba teel ak Aziz ci biir néeg ak Aziz. kon ñuy wax naan Matar day xeex waali waali day waaw dama ne la dama ne la su ko waali tegoon fenn wala waali am lu muy duut yaa yaakaar naa ni ndey ak Matar saal bi mais da koo dugal ba ci néeg ñoom ñett kese ay xatu waali ñëpp a ngi toog waxkat yëpp a ngi toog ñu tënk lii tënk ñu ñibbisi dégg nga bal déggoo ma soo bisu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Kiné Diouf mi dee tey moom moo tax daaw ñu réeroo muy yaay waali man xam naa dara waaye ay ay nitam yëpp samay nit la Ndiogou Mbaye xaritam su nee neexee ma ne mooy meilleur ameem man rek la bëgg ñoom ay Aïda Diallo ba fa Gueye Sali Gueye Maana Niass ñooñu ñëpp samay nit la te ku lim juum comprendre nga kon soo bis ñi ci biti ñooy wax mais ñi ci biir rek ñoom duñu wax parce xam nañ lépp mais nag nañu rafetal parce que àdduna bi dafa jeex ba pare barke Serigne Babacar jeex na ba pare. d'accord kon na rafet. d'accord ana Zal Mbaye. Zal mi ngi fi. Zal mi ngi fi. waaw mi ngi fi wala ñëwagul. Zal waaw Zal fii la. man man jot information. Zal sama néeg la fanaan. Zal ñu ne jàpp nañ ko. jàpp dikkal la ba plainte na ko bañ jàpp. Fanta ngi nii toog barki dama ne la. barki Sëriñ Zal fu mu fanaan nga ne. waaw dama ne la barki Khalifa Ababacar Sy Sëriñ Babacar rek laa gëm. Zal Mbaye man sama néeg la fa ñun ñëpp Zal Mbaye Maam Ndiaye Savon ñun ñëpp sama néeg lañ fanaan. kon Fanta boo ngi nii toog. léegi léegi Zal Zal jàpp nañ ko. waaw te fekk ci kanam. plainte Zal Mbaye ak ci kelaw be yow lan nga ci dox. non man moom loolu. doxoo ci dara non ma lu ma wax xam nga tax aw ma lu ma ciy wax. xeexu TikTok man bokkuma ci. bu dee bu dee xeexu jàkkaarloo wala xeexu mbedd wala xeexu programme ci sama nit bokk naa mais bu dee TikTok man bokk ma ndax coow ma coowu TikTok parce que liggéeyu ma liggéey TikTok waaw. d'accord d'accord lan ngay conseillé ci tiktok bi. mu bañ a defante wala tontonteeg jigéen ñi. comme moom góor la waaw li ma koy conseillé mooy. comme ni nga ko waxee rek góor la. Ah. te am na yoo xam ne góor moomu ko. comprendre nga amaana sax yàlla moo xam parce que man la nekk ci biir xaw ma comprendre mais su ma sañoon zaal mu bàyyi mu sedd parce que li la wax léegi àddina bi amul solo muy moom muy tikke te ku ko ci sa am safaan sa morom dina dem wuy si ko te nan ñu moytu coowu tiktok parce que coowu tiktok nekk na loo xam ne ci àdduna du ma sa fay. yaa ngi nga ma am na loo xam du ma sëy te genre suba day am jabar am ay doom comprendre nga. Ah. tikka tamit ñaan na yàlla am jëkkër mais coow coowu tiktok pour man kii wax fii lu ñaaw kii wax fii lu ñaaw amul benn sens. da leen di lambal <laughs> pettal leen nit ñi jéppi leen ci man loolu laa ci gis. d' accord Sidy Diop le 29 juin dafay dem Zénith. incha allah mu nekk première sortie am mhm. ñu gis ci affiche yi mu def ñëpp parrain sauf Wally ñu bëri na leen lu tax invité wul Wally. non <laughs> bi bi koy def boobu lu bëri lu bëri amagul. te bu te bu neexee yàlla suñu borom. Ah. nañu yàlla may gudd fan at wér gu yaram. léegi ci kanam bu dëj bi paasee ba waale noppalu léegi ci kanam di ngeen gis vidéo ngeen xam ne waali Seck du ci slip caay la ci. mais loolu c'est pas trop tard. non non c'est pas trop tard c'est pas dama ne fekki fan. Ah. ci kanam di di xam ne waali. du ci slip caay non non du loo sax magam la te day ñëw jàppale ko te day ñëw dooleel ko. dégg nga ma parce que waali at Matar waxtaan nañ ah kon jaana kon mën nañ xaar Zénith waali seeg si kaw bi si non Zénith bi day neex waali dafay toj man maa la wax lii léegi may ñaanal nag ñëpp jàmm di gërëm Fanta Mboum mii ndax nee naa ko ne natt yi baax yi ci réew mi moom moo ko yor xam hmm. man faale ma kenn